l'hôpital régional de Saint-Louis et l'hôpital régional de de Louga. d'abord quoi de Louga Louga d'abord après Saint-Louis. donc pour les corps sans vie il s'est trouvé que l'hôpital de Saint-Louis ne disposait que de deux places de mort disponibles. donc du coup l'ensemble des corps sans vie ont été évacués vers l'hôpital de de si la mort est pleine on sera obligé de continuer sur Thiès ou Dakar. waaw affaire bi moom yéeme na trop yéeme na trop waaw vraiment métti na trop trop ñun ci fajar si si leen yem gaare parce que bi ñu ñëwee ñun ñoo doon jàppale gendarme yi pour ñu génne koor yi ci oto bi car bi waaw li dee moom yéeme na trop yéeme na euh, trop waaw dégg naan lim bi 19 ñi waxaguñu yow lim bi. non kenn mënu laa wax ñaata la li dee moom bari na trop am na ñoo xam ne car bi daf leen yéeg ñu ngi ci car bi ñu ngi leen di dindi nii. ëpp na 19. ëpp na 19. ëpp na 19 vraiment vraiment ëpp na 19 parce que man sama oto euh, yére yi si nekkoon sëri ci nekkoon client yi ma yeboon yëpp dafa leen jox sëri ñoo doon sàngu koor noonu fi ñu tëdd noonu vraiment métti na trop mais yàlla na fi yem daal vraiment. waaw choc bi nu mu demee ndax dañ ñi benn camion la li ma gis ak benn kaar neenoon benn mbaam lañ doon moytu. waaw benn kaar bi jóge horaire wu ñiij la moom moo doon moytu mbaam bi xam nga fekk camion ci voie am. Mhm. léegi ñoom ñaar ñu def face à face. Mhm. waaw fu ñu defee face à nag ñu mbëkkante car bi daanu y' a plusieurs morts vraiment oto bi li ci dee yéeme na. Mhm. mais daal yàlla na ko yàlla yemale fii. vraiment métti na métti na métti na yàlla na ko yàlla yemale fii nan delloo suñu xol yi ci yàlla ñu seetaat ni vraiment lii choc chauffeur kenn du tey di def choc. waaw mais lii metti na trop trop trop trop trop trop mais yàlla na ko fi yàlla yemale. jamono gi ñuy wax ak yow. <laughs> Euh, fi mu nekk nii Euh, kaar bi ne. Mhm. am na ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan mais ñu ngi ci suufu kaar bi ba léegi génnaguñu. parce que kaar bi bi mu dalee ak camion bi camion bi dafa chargé woon bi mu dalee ak kaar bi euh, place su siège fi siège yi tegu dafa toj am ñu suuf ci biir ñoom la sapeur ne di yëkkati. Mhm. ñoom la sapeur di yëkkati oto pour pour pour jël koor yi nekk ci suuf mais yéeme na daal moom daal yàlla na ko fi yàlla yemale yàlla mi man lii. def lii yàlla na ko fi yàlla yemale ñi gaañu yàlla na leen yàlla xare àjjana seen i mbokk yàlla na leen yàlla may xolu muñ vraiment métti na métti na métti na.